man nekkatuma xale xam naa bu baax li may def xam naa bu baax fi ma teg sama tànk woy bii gisuma ku ma ci génne taxawaaluma bu ngeen xëyee liggéey duma toog di xoolanteeg mur yi damay génn doxi samay soxla comme ñépp wuyu foo xiifee yow lii mooy lan kër gi boo amoon caméra cachée looy wax sama yoon si ay caméra cachée waaye tooguma kama bay daw bay daanu. ah ci ma yoon nag soxor nga yow yeddoo ma danga may xas ndax boo nee góor ñi dañuy dugg ak a génn naan ma dangay taxawaal loolu ku ko dégg kay sama der bi lan laay ci dëkk bi Zara. soxor man soxor nga yow boo ma waxoon dañ lay takk je vais sauter soxor yow liñ may njëkk a takk moo la yaa a soxor loolu lu may doy di met soo bëggee ñeenti nit nañ la takk lu sama yoon. bu da dangaa yaakaar ne dangaa moom sa bopp. génnal gis nga tey boo génnee tey laa lay xamal ne la Sénégal am na pétrole. ma ne tey laay xam nag fu ma bëgg a dem dinaa fa dem. moom ma j'en ai marre ça n'avance pas man ak yow damay teg benn pas toi on dirait que toi tu recules toujours tu veux que je te montre quoi tu veux quelle preuve encore. saa nga dama tey waxuma mu jër baax léegi nag nii la ñuy def ñu fi rey ñoom noonu lañ leen def ah ñu naan ay day foo lay menace ñu naan ay foole ba nga xëy mu raay la man nag du ma ko nangu. Votre série Nara Fête sera disponible le 10 mars 2019 sur votre chaîne YouTube.